yow bëri nga man kii soxla moom. aywa Fane mënu àtte yow. waaw kay gis naa policier bu am ful la tey ñaari taximaan yi dañ fay nekk di xeex mu boole leen mënata leen kii fii la mbëkk dañoo mbëkkante ki mbëkk fi xoolal ñi ngi seet seeni i daal merci monsieur l'agent yow ku am fulla nga réew mi war nañ la décorer ku am fulla la léegi continuer leen xeex ce pays va mal moralement ce pays va mal sincèrement ce pays va mal